malal yes mais mon masque il dañ ma à jaaxal quoi parce que finalement nous ñëpp ñoo nous ñun ñëpp ñoo finalement parce que on a on a tous comme ça bu doon défilé de mode là par exemple on aura tous la même note quoi <laughs> parce que suñu xar kanam suñu xaju kanam moy feeñ ko <laughs> et puis en même temps ça des fois damay dox me sama pour ninja je ne le je ne le dis pas pour saboter hein. Euh. dama koy wax ni parce que. je ne porte pas bien hein. impression donc. <laughs> et puis chacun est spécialiste donc il est également spécialiste du masque quoi mon war wax également. mais en même temps euh, man dama japp ni euh, mbir bi compliqué na trop trop trop trop. C'est li waral mu compliqué on est dans la routine ci la communication on est dans une forme de redondance dañuy à 10 heures ñëpp jàpp radio, déglukaay yi bu faites 40 cas lañ testé ñu ne ñu am nañ 4 bu 1000 cas lañ testé ñu 66 pour moi, si on est de très bons bu faites vraiment mbir mi ñu ngi ciy liggéey niñ ci war a liggéey di sàkku ci population bi ñu am Il comportement yi une responsabilité yu aussi ci le communication état war voir ci jël war na ci defaraat taxawaayam defaraat taxawaayam mooy bu dee ci réewu tubaab yi dañ naan d'ici nangam on pourrait arriver ou bien on pourrait atteindre le temps de chiffre mais dafa mel ni loolu ko et ce débat là il faut le poser maintenant. Si soukandi ko ci tay buñu testé 1000 buñu testé 500 66 normalement warna amuna wax sénégalais effectivement voici le nombre buñu deful avons. lolu moy que nous avons moytu hmm. parce qu'en fait on tay testé 500 on a testé 40 finalement il n'y a même pas une organisation assez sérieuse dans ni organiser test yi dañ koy organiser dañ ko war a ñeme wala ñàkk ko ñeme sénégalais yi tiit benn yoon wala sénégalais yi sénégalais yi xam fi ñuy taxaw c'est quand même important nous sommes un pays bi nga xamante ne socialement parlant si on dit au sénégalais distance d'un mètre, bu midi di les grandes familles mënuñ def distance d'un mètre il faut que ñu bokk benn bol parce que kilo ceeb la ñuy sóor wala ñaari kilo ceeb am na loo xamante ne fi ne et également si on veut à partir de six heures ne six heures état d'urgence nous na commencé 6 heures nous avons dugg ci wéru corps 7 heures ñu 7 heures nit ñi génn c'est-à-dire 13 heures de temps sénégalais yaa leen téye sen biir kër té nit ñi dañuy taxale la majorité notre économie tient sur l'informel lolu ay aspect la yu ñu wara a mais aussi ma xalaat ni comme que biñu ñu pourcentage de mag ñi mo ëpp ci ñi muy laal mais nañ def un test des tests ciblés ñu jël ñi nga xamante ne à partir de xeyna de 50 à 100 ans ñu décider xol ñooñu tester leen ci ndaw ñi ñu djublu ci ñom defal leen ay test sérologique xol lan moy sen niveau immun immunisa immunisation xaw ma immunité seen niveau immunitaire pour man ci yoy lañ wara jëm li ci dess nak euh li ci dess buñu bu ñu bu fekkee nii la nar a continuer bu ñu xaar ay chiffres les choses vont continuer. Parce qu'en fait, la personne qui sort, qui dit je vais quitter Touba pour aller à Tuaon parce que je suis un commerçant. Je vais quitter <coughs> effectivement Djander pour le marché Castor, pour Djaï Samay Soble parce que tu l'as Parce qu'effectivement, les mesures qu'on devrait prendre, sociales qu'on devrait, on a mis les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire, on n'a pas, on n'a pas, finalement, moi, quand tu veux me confiner, quand tu veux que je reste chez moi, quand tu veux m'aider, pour moi, un état il anticipe il ngay anticiper ci affaires de bëri pour moi, c'est ce que je a c'est une forte responsabilité c'est très général Les sénégalais ils ñoo partagé ñoo ko masques etc. cetera xam nga léegi Charles mu par exemple. Euh, masque normé un filtre pour me respecte. respecter mais moi je me dis que pour moi, il faut d'abord des masques barrières parce que il faut que nous nous d'abord protéger même bu que en fait dina yak ci sa sañse dara mm-hmm. parce que boo bo boo sañse Bouba Ndour bu bëgg a bi bii bu la leeram ba pare texte mic masque naay sa donc finalement il faut qu'on qu'on aille beaucoup plus vite et puis voilà sax ñu décider benn journée écoutez les Sénégalais sortez confinement amul dara amul ay ca respectez les on vous met devant vos responsabilités